biñ siyaare noonu rek fab siyaare bi teg ko ci loxol sëriñ Modou Mbaye Thiam mi nga xamante ne moo nekk ci machine bi di ci sonn nekk ci liggéey bi guddeeg bëccëg mook sëriñ Pape Gueye ñoom ak sëriñ euh, Aliou ñoom ak gone yi nekk yëpp rek ñu ngi siyaare ñëpp te leen ndokkeel ci weer yu tedd yi nga xamante ne ci lañ toll muy weer yi mbégte di weer siyaare seen jataay bi dal ma ci si suuraay dellu siwaat ni mu ko daan defee toujours rek ci loo xam ne bokk yi dafa mel ni ay actualité la yoo xamante ne waris na fu ñu toll rek mel ni di ko waxtaane ndax di ko waxtaane jot na ndax ah, suñu ko deful dana indi ay njuumte wala mu indi ay raq-raq wala mu indi ak yokkute goo xamante ne bu boobaa dana nekk luy neex saafara muy niñ ko daan waxee toujours rek bokk yi yoonu murit du lu am solo di lu am importance def na cee def benn jataayu waxtaan boo xamante ne jataayu waxtaan boobu rek moom la ñuy waxtaane waat ndax jamono laaj na ko fii lu toll jamono laaj na ko fii lu toll mooy eh, dañ ciy waxtaan benn bis waxtaan ak mën na mbokk taalibe ñuy wax ne eh, màggal yi ak cant yi wax dëgg yàlla lu baax la lu am solo la ndax am solo gi kenn wérantewu ko da nga gis xëy na kenn koo xamante ne ci lay lekk lekk gu neex wala mu lekk ci lekk gu baax ñi nga xamante ne Sénégal noonu la mettee te buñ ko deful woon it ñu ne xale yi danañ dugg ci yeneen béréb yoo xamante ne suñ fa dee dugg danañ def laneen lu bokkut ak màggal yi wala lu bokkut ak cant yi waaye mbokk yi xam ngeen ne it aw yoon du doxe noonu dafa war a nekk loo xamante ne lu ñu organiser la bu ñu ko organiser wul coow yi ak pëccëxoo gi day dem ba nit ñi kenn duutu xam fooy teg sa tànk te dañuy mujj sax soppi ko mbir moo xamante ne mbirum falkuloor lay doon waaye dañuy mujj soppi ko mbir moo xam ne it nag dafay dem ba yàq yi dafay mujj dafay ëpp nag lu mel noonu nag bu amee waris naa toog waxtaane ko su ko defee ñu soppat ko ba nit ñi man koo jariñoo nos ko ba nga xamante ne kenn ku ci nekk di nga xam fi ngay dëgg sa tànk bu baax a baax bokk yi mu mel ni ngir indil leen waxtaan wi nit ñëpp mën a comprendre liñ bëgg a waxtaane kon jaadu na rek ñu ne bisi màggal yi ak cant yi dafa ëpp ba jaadoo dut léegi nag pour tàmbali waxtaan wi pour nit ñi xam liñ bëgg wax dëgg dëgg lan la dañ leen di wax programme bi sëñ Touba jëlal xam nga sëriñ Touba moom mi nga xamante ne mën nañ cee joxe exemple te moom mu indi fi yoon wi nga xamante ne mooy yoonu murit wax dëgg yàlla organiser woon na ko organisation bu mucc ayib nan la ko Serigne Touba organisé Serigne Touba bi mu dikkee dafa sàkk bisu boppam boo xam ne dafa wax ne bis bii bu agsee yéen murit yépp na ngeen ma ci santale yàlla yéen murit yépp yéen jullit ñépp fu waay man di nekk te jullit fu waay man di nekk sax tey xalaat ne yàlla suñ boroom mooy sa yàlla rekk dee ma santale yàlla ci lii ma nekk même bu fekkee sax da nga ne yàlla mooy sama yàlla wante xëy na séere woone Muhammad wala séere woone nangam waaye gëm nga ne yàlla rek mooy sa yàlla te mooy yàllay kenn ji Serigne Touba bu jotee na ma ñëpp santale yàlla te loolu bokk yi mooy 18 safar kon mu mel ni bu fekkonte ne xamoon nañ déggu sëñ tuuba wala xamoon nañ li sëñ bi bëgg woote kon dafay mel ni point boobu Serigne Touba yombaloon na ko waa yombaloon na ko ci kaw mënoon nañoo tënk ne léegi Serigne Touba bisam boobu muy wooteelu di màggalu Touba di 18 safar bu accepté bépp doom doom joo xamante ne sëriñ tuuba moo lay mooy sa waajur wu góor bépp doom joo xamante ne doom ju jigéen la te Sëñ Touba di sa waajur bépp soxna boo xamante ne sëriñ Touba mooy sa waajur ku fi jógeeti ku fi amati màggal ñoom ñépp nañ bokk jël seen bis dëxëñ ko ci biir màggalu Tuuba maanaam nga xam ne duñ woote benn bis bu dul màggalu Tuuba bu màggalu Tuuba dikkee ci la ñuy woote waale màggalu sëriñ Baara màggal sëriñ Abdul Ahad màggalu sëriñ Saaliw màggalu sëriñ Fallu màggalu sëriñ Muudu Musaa màggalu sëriñ Basiiru mboolem màggalu soxna Astu soxna moomi soxna may mbooleem doomi Serigne Touba ju fi nekkoon rek màggalu Touba la ñuy boole ak sa màggal dëxañ ko ci biir màggalu Touba defandoo ko muy benn yoon. ko defee kon dafay mel ni point boobu Serigne Touba réglé woon na ko réglé gu wér wante tamit nag Serigne Touba yemul foofu ndax moom léppam daf koy séddale léppam daf koy joxe kenn ku ci nekk ci daf lay jox teraanga teraanga ju mat sëkk mbooleem ku ko toppoon noonee nga xamante ne noonu lay joxe teraanga it Serigne Touba bi mu fi dikkee noonu la jël am mbooloo mbooloo moo xamante ne daf leen a wax ni leen yéen ñii maam Cheikh Ibra Fall képp moo leen mën a jariñ dem leen ngeen tarbiyewu te àndandoog maam Cheikh Ibra Fall su ko defee ñoom itam képp koo xamante ne doomi maam Cheikh Ibra Fall nga wala ngay cheikhou cheikh ibra fall te aju ci cheikh ibra fall ak fo man di bok te nga xamanteni ci baye fall nga bok ak no ca bokki rek jant bu bisub maam cheikh ibra fall dikke ñom ñepp ñu jël seen bis bobu dexeñ ko ci bisub màggaluk maam cheikh ibra fall kon ñaari magal a ngi noonu muy màggaluk seigne touba ak màggaluk cheikh ibra fall su ko defé tamit mu ne am na ño xamanteni ne mbacke bousala len kon ñoom itam képp kuy doomi sëriñ Mbàkke Buso wala ngay sëtu sëriñ Mbàkke Buso nga jël sa màggal nga jël say bis yépp nga dëxañ ko ci bisub màggaluk sëriñ Mbàkke Buso am na koo xamante ne maam Ceerno la jox wala sëñ Ndaam Abdourahmane ñoom itam ñu jël seenu bis dëxañ ko ci bisum ndaam waa daarul mu atti jël seenu bis dëxañ ko ci bisub daarul mu atti bisub maam Ceerno Birahim waa daaru salaam jël seenu bis boole lépp ci bisub maam Seex Anta waa kër sëñ daaru Assane Ndiaye jël lépp ñoom dégg naa def nañ ko barakallahuma saxalaaw yàlla na yàlla barkeel ñoom dégg naa seen bis yépp jël nañ ko tënk ko ci biir màggalug sëñ daaru Assane Ndiaye nga xam ne boo fa demee rek dem nga màggalug ñépp kenn ku ci nekk toog sa kër jàng alquran jàng xasida mu mel ni bokk yi noonu ko Serigne Touba séddee woon suñ ko defoon màggal yi dafay yomb te bis boobu dana nekk bisi événement yoo xamante ne mbokk yi yépp ay dajeedoo mbokk yi yëpp ay dajandoo du am du am surux surux du am luy yàqal mbooloo mi du am luy dindil kenn dara wante imagineel mbokk yi imagineel mbokk yi mbir mi buñ ko nosul du too xam fu jëm bis bu nekk boo xëyee ci évétement ngay dal ba ba keroog jant biso so léeg sax bis bi lu ma juróom wala juróom benn màggal da yendoo te mbokk gi kat genn mbokku ge ñoy dajé kër mam cheikh ibrahim fall ñoy dajé kër mam cheikh ibrahim ñoy dajé kër seigne daru asan ñoy dajé kër seigne dam ñoy dajé kër seigne mandumbe ñoy dajé ci mbolem kër yépp ben famille bi lañ ñom ñoy bok ñoy ñew fi bu suba ñu dem fele bu suba ñu dem fele légui nga gis ci genn kër go xamantene kër gi ben nga ré exemple ci doomi seigne touba yu magi yi won doomi seigne touba joju bimu fi joggé yagna amna ay doomam yu mag yu fi joggé nga mag nga bëgg magal bayam ma nga màggal doom je bëgg màggal sët ba bëgg màggal sëtaat ba te kenn ku ci nekk am ci lu mat juróom-benn wala juróom-ñaari doom yoo xam ne ku ne noonu lañ lay defal nga xam ne da nga ci gis genn kër goo xamante ni tey genn kër gi lu mat fukki màggal dafay nekk. par exemple tey nga dugg Daaru Muxti nga jël fi genn kilifa da ngay dem ci genn kilifa goo xam ne biir këram rek lu mat fukki màggala nga fa ndax moom danañ ko màggalal moom ci boppam màggalal ay doomam yi fi jóge boole koog nag cant yi nga xamante ne gone yi ñu ngi koy organiser ak guddi kuréel yéeg ay guddi nangam ak guddi maam Cheikh Ibra Fall ak guddi soxna jaaraak guddi guddi guddi soxna Faati Isaak guddi nangam nga xam ne ay guddi yu baree bare la yoo xam ne gone yi dañ koy organiser ko ci mu mel ni léegi buñ ko toppee bokk yi buñ ko toppee bokk yi te évétement yooyu yépp noonu événement bi bokk ci Daaru Muxti képp ku bokk ci maam Thierno Birahim képp kuy seexu maam Thierno Birahim su fekkonte ne tey dañoo dëxañoon lépp ci màggalu daaru Muxti màggalu daaru Muxti dafay yéwén te liñ ciy dajale ci alal lépp mën naa defar dëkk bi liñ ci yàq ci alal ndax boo ko seetee événement yi ni mu ko tënkee woon ci Italie waxoon naa leen événement yi bu ci gën tuuti fii ci Sénégal ba ci cant gi gën a tuuti rek ki woote ak cant muy xale bu góor bu woote sant moo Mahmoudan wala sant nangam dana rey aw nag togg ab ceeb def ay nangam def ay invité def ay carte def ay nangam nga xam ne boo ko seetee rek cant ga lum tuuti tuuti bu cant ga jàllee téeméeri junni wala un million dana ci jeex. nga xam ne loolu tey bokk yi su fekkonte ne organiser woon nañ ko defoon ko ci biir famille bi organiser defoon ko ci biir dëkk yi dëkk yi dafay nekk dëkk yoo xam ne dëkk yu jaar ci yoon lay doon. waaye malheureusement nag bokk yi yëf yi fi mu toll nii dem na ba ñàkk a nosu gi ëpp na ëpp goo xamante ne fi toll nii kenn kenn mënatu ko régler kenn mënatu ko régler ndax bis bu nekk lu ma juróom benni màggal te même famille bi la da ko ci gis ne léegi yow da ngay dem ba nit ñu mag ñooñu sax organiser nañ ay màggal yu ndaw ci biir yoo xamante ne dafay dem bay teq nit ñi ba nit ñi duñ mën a dem ci événement yooyu dafa mel ni nag bokk yi am na ci loo xamante ne faaw ñu nos ko ndax buñ ko nosul buñ ko defee buñ toppee mbir mi par intérêt rek mënumaa ñàkk màggalal sama baay wala mënumaa ñàggalal nangam kenn ku ci nekk di woote kenn ku ci nekk di def nangam dafay dem ba ëppi loxo ëppi loxo yoo xamante ne bokk yi kenn duutu ko mën a saafara te fi toll sax yaakaar naa toog toll nañ ci imagineel fi mu toll nii tey ci Touba Mbacké bokk yi amul benn bis boo xamante ne lu mat fukki cant wala ñaar fukki cant dana am ci biir dëkk bi bokk yi mbokk yi def cant yi xalaatuñ ñi nekk ci kër yi te feebar xalaatuñ ñi nekk ci hôpital yi te feebar xalaatuñ nit ki am ay jafe-jafe ci biir këram xalaatuñ ci dara mooy da ngay gis ci digg mbedd mi ku takk ay rajo yoo xamante ne ci biir néegu jàmbur lay tiim mu yokk ko bum mu sës fanaanee yuuxu ba bët set naam lu fekkente ne alquran ngay jàng digaluñ la ko su fekkente ne xasida ngay jàng digaluñ ko ndax xasida ak alquran du sonal ken te kenn ku ci nekk mën nga koo durus ci sa biir kër waaye nag bokk yi dafay dem ba nit ñi bàyyeetuñ xel joxeetuñ sax àq ci seen dëkkandoo yi àq yi nga xamante ne àqi dëkkandoo la ndax am na ku feer am na ku tumurante ci biir kër gi am na ku mel na neen am na ku mel na neen koo xamante ne jàng gi ngay jàngi xasida moom mën na la caa muulu ba wax ca loo xamante ne sax lim ciy wax mën na koo gaañ ca fekk yow yaa ko tooñ ndax moment bi mu nekk du moment boo xamante ne war ngaa nekk ci mbedd takk ay rajo bu fekkonte ne sax dañ koy yamale ba minuit wala nangam wutal ko ay heure nag yoo xamante ne dañ koy organiser parce que am na xaar yoo xamante ne nit ki dafa war a dallu pour mën a yeewu julli fajar imagineel nga sodd ñëw tëdd sa kër ab rajo tiim la ci sa biirum néeg fanaanee yuuxu ba bët set te njàng mi léegi mm, li ci nekk mënisutu ko wax parce que jànguñu bawuñu baw bawuñu da nga ci dégg koo xamante ne ay tur lay bu bët set du jàng genn xasida gu àgg xasida gum tàmbali dal ci kaw nangam sëñ diw sëñ diw sëñ diw su ko defee nit ñi di joxe ay xaalis yoo xamante ne xaalis yi kenn du xam ne bañ nañ ko ba jàngkat yu ci bari sax léegi olofal yi lañ gën a taamu parce que olofal yi ngay tudd turu koo xamante ne ku siiw la wala nit ñi bëgg nañ ko nit ñi dañuy daanu di yëkkati seen alal di la jox kese ngay yuuxu te jàngoo jàngum dara nga xam ne jàng jàngkat yi jàng xasiida gu sax mënatuñ ko jàng genn xasiida goo xamante ne xasiida gi da nga koy tàmbalee ci tàmbalee ba ba ci fa mu yem sax mën a situ ko léegi kon mu mel ni kon bokk yi dafay mel ni folklore bi ci nekk ëpp na ëpp goo xamante ne suñu ko continuer di ko topp dafay indi ay ngaañte ndax mbir mu nekk rek bokk yi bala ñu koy mën a jariñoo dañ koy organiser dañ koy organiser te pourtant sëñ Touba moom tënkaloon nañu ko sëñ Touba tënk sëñ Touba ku dégg adduna la sëñ Touba ku mën a organiser la moo tax magam ñi doomam yi kenn ku ci nekk mu jox la dara séddale ko fa mbooloo séddale ko lam bëggoon mooy mbooloo mu yëpp yam ci jëmm jën leen sédd te bañ a berse yi fi bopp waaye léegi kenn ku ci nekk day berse yi fi bopp bu dee seexub maam Cerno Birahima day berbe yi fi boppam bu dee seexub sëñ Touba day bere yi boppam bu dee seexub kanee na maam seex ibra day mujj ber yëfi boppam bu dee seexub kanee na day mujj ber yëf bu dee doomama day mujj ber yëfi boppam nga xam ne kon mujj na mbir yi su nekkee kenn ku ci nekk rek ber nga sa yëfi bopp dafay mujj doon pëccëxoo boo xamante ne kenn duutu xam fooy teg sa tànk bokk yi te sëriñ bi moom organisé woon na ko mooy ñi bokk ci maam seex ibra yam ci maam seex ibra képp bu bisam ak see ñu woote ko su ko defee waa daarul muxti yépp mën a ñëw waa daaru salaam waa da waa gaawaan waa kër sëñ Mandumbe waa kër sëñ daaru Assane Ndiaye ñoom mën a ñëw bokku gi di benn ñu mën a saafonte kenn ku ci nekk waaye nag su fekkente ne tey daarul mooti seex bu nekk ber nga sa yëfi bopp doom ju nekk ber sa yëfi bopp su ko defee nga xam ne boo ko wootee say nit ñoo ciy ñëw nga xam ne day dem ba mujj yàgg sax bis yiñ sàkkaloon ki moomoon yëf yëpp day mujj sax bis yooyu dafay sooxe ndax kenn ku ci nekk da ngay kenn ku ci nekk da ngay xaar sa bisu baay wala nga xaar sa bisu mag nga xam ne dafay mujj sax ñooñu loolu ñu leen sàkkaloon dafay mujj bis yooyu sax day mujj bis yooyu day sooxe te nit ñi duutuñu am jot duutuñu am jot ndax day mujj duutoo talat di jënd sa kër sax ndax bis bu nekk yaa ngi taal sa oto di dem ci sa màggal te am na màggal yoo xam ne boo ci dewul ah, fekk seeni boroom ñëwoon nañ ci sa màggal seeni boroom mer ndax démb démb démb ñun la woon màggalu koso màggalu sëñ Mahmoudan yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem démb ca màggal ga lañ yendu waaye am na ay màggal suñuy xarit yoo xamante ne ñoom ñoom ñoo doon ànd ñu di xale ñun ñu tuddee ñu sëñ Mahmoudan doo mën a dem fu dul màggal googa ndax am na loo ci yore am na loo ci war a def waaye fi mu màggalu xarit googu boo ci demul sax daf lay mere du comprendre ne yow demoon nga ca màggal gal te fekkonte ne booba bu fekkonte ne lépp boole woon nañ ko ci màggalu daaru muxti waa daaru muxti gépp danañ mën a saafonte kenn ku ci nekk gisante sa morom kenn ku ci nekk saafonteeg sa morom bis bi it ñu mën koo toppatoo ba bis bi mucc ayib luñ ci war a def ñu def ko ci waaye nag bokk yi su demee ba nga xamante ne nag pëccaxoo bi kenn ku ci nekk di wooteel sa bopp kenn ku ci nekk di xëccal sa bopp dafay nuru loo xamante ne kenn xamatul lu mu doon te du su ko mën a organiser du su ko mën a organiser ndax bu boobaa ñee ngi woo jàngkat boo xam ne ni ma la ko waxee léegi rek day day day rek sëñ jiw sëñ jiw sëñ diw ma ëpp bayre rek lay woowu turam gaa yi di yëkkati xaalis di ko jox mais jàngatoo xasit fanaa ne tàngal nit ñi ba bët set gis keneen koo xamante ne dañ la ko woon daarul muxti kat mëni sutu fee tëgg waaye bokk yi ñu ne la daarul muxti mëni su fee tëgg signifieewul ne rëddu daaru ci lañ ne mënatu fee tëgg dañ laa wax ne la yow ginnaaw ci ci maam Thierno Birahim nga bokk te maam Thierno Birahim ordre la wu woon bokkut ak ko daan def ci kanamam nga xam ne bi fi maam Thierno Birahim nekkee dañ ko daan def ci kanamam xëy na te waxu leen ca dara ñooñu am nañ droit waaye yow mi nga xamante ne mosoo ko def ci kanam borom daaru mooti sa bàyyi mosu ko fee def sa maam mosu ko fee def nga bëgg ne ah ginnaaw nangu luñ ma ko daaru mooti léegi naa dem ci sama daar su ma demee ba beru tëgg foofu kon dafay mel ni da ngaa ci biir cadre daaru moxti wala da ngaa génn ci cadre Cheikh Anta wala cadre keneen koo xamante ne cadre boobu moom nga bokk ci siyaar mu mel ni kon bokk yi yoon wi eh, jant bépp boo xamante ne wàcc nañ eh, ni nu ko Serigne Touba rëddale woon nim ñu ko tegale woon yoon bi nga xamante ne ci lañ waroon a jaar rek jant buñ ko wàccee daf ñuy andil ay jafe-jafe yoo xamante ne kenn dut ko mën a lijjanti imagine tey bokk yi ku mel ni xalifa général de Mouride tey nga xam ne moo jiite ñëpp moo yilif ñëpp tey man même ci sama bopp man Mahmoudan sax su ma demoon ba sàkk ab bis ne damay def bis bii tey xalifa sénéral de Mouride war na caa ne ndaw bokk yi xool leen li ci yoon wi tey su fekkente ne tey xalifa yépp kenn ku ci nekk ci ñun. bëgg nga booy def sa bis xalifa général de Mouride ci bi yónnee ci nit wala bu ci yónneewul nit nga ne ah man kat teguñu ma fenn wala nawlo wuñ ma te yéen ñëpp xam ngeen ne lépp kenn mënu cee dem kenn mënu cee dem mu mel ni kon bokk yi te bu fekkente ne organiser wuñ ko mbir mi dafay dem ba duutu yam ci Sénégal képp waaye même day jàll ci biti ndax jamono yi nga xamante ne ñu ngi Italie waxoon nañ leen ko nee nañ woon tey événement yi am na ci loo xamante ne buñ ci deful attention te nos ko dana yàq lu baree bari ndax day dem ba ci bitim réew tey mënoon nañ màggalub Daaru Muxti bu jote mbokki taalibe yi nekk itali ñoom bis bu ñuy defati bu mu doon benn bis bu dul bisu Daaru Muxti ku fa sëñ mu daaw bàlle di sa sëriñ ku fa sëñ Abdu Xudoos di fa sëriñ ku fa sëñ Bas Anta Ñaŋ di fa sëriñ ku fa sëñ Abbas ku fa ak ku man di doon rek ku man di doon sëriñ rek bu bu jotatee nañ dajaloo ca màggalu Daaru Muxti ga nekk Italie taalibe yépp bokkandoo ko ñu defandoo ko muy benn bis kenn bañ a ber dara màggalu daaru sëñ daaru Assane Ndiaye bu ñëwee ñu def noonu waaye même Europe sax gis nga ne xat gim xat ak problème yi am problème mu saal problème mu organisé ak xaalis bu bari bi yàqu dem nañ ba ñoom itam kenn ku ci nekk taalibe bu nekk yaa ngi organisé ci cantuk bopp ñii sant sëñ Saliou ñii sant sëñ Baara ñi sant sëñ Basiiru nga xamante ne du duutoo mujj xam lu muy nuru nga xam ne samedi bu jot am nañ programme pour war a dem ci cant wala ñu war a dem ci màggal te màggal ga ni ma ko waxe woon màggalu Italie ni mu seere màggalu Europe ni mu seere màggal gi gën jaa tuuti nga ñàkk ci trois mille quatre mille te quatre mille euros yooyu tey jii nii boo ko yónnee woon fii nga xam ne waa Daaru Mooti ga ci dëkk bi fi daf ci fatt buntu yu baree bari 4000 mille heures yooyu boo ko yónnee woon daaru salaam mu fatt fa ay bunt yu baree bare boo ko yónnee woon ndaam mu fatt fa ay bunt yu baree bare soo ko yónnee woon même tuubaa gi nga xamante ne lañ bokk nga xam gis ngeen la ci dëkk ba bokk yi fan yi ñak sécurité gi mbedd yu tax yi nit ñi lu leen neex def kenn mënu ko organiser tay amna xaaliss yu ñu yàq ci Europe yo xamantene tay xaaliss yoyu buñ ko dajale won buñ ko dajale won te andi ko ci biir dëkk bi mën naa defar lu baree bare mais da ngay organiser ak màggal jënd say xar jënd sa furwe jënd sa nangam boo paree da nga financé def sa bilan boo noppee sa 3000 sa 4000 euros dee xam nga bokk yi nga def ci mille euros ba pare ah, dem ba Sénégal jébbale 2000 euros wala jébbale 1000 euros kenn mësu koo gis bokk yi kenn xamatul lu muy nuru wax dëgg yàlla kenn xamatul lu muy nuru xalifa général de Mouride li mu yor ci forosé li mu yor ci war a defal ci dëkk bi nga def ko noonu ba pare yow jël sa màggal organiser ci 4000 wala 7000 euros. ba pare dem ba ca xalifa ba du joxe mille euros kenn mësu ko dégg nag kenn mësu ko dégg bokk yi dafay nekk loo xamante ne ak pëccaxoo la wante it du yam foofu ñàkk organisé googu day dem ba ci Sénégal ba ci même daayira yi bisu nga dégg ñu ne la ab daayira bu jógee Ndakaaru wala bu jógee Kaolack wala bu jógee Casamance wala bu jógee Tamba wala bu jógee fenn ma dem japp nañ bis boo xamante ne bis bi mooy bisub seen dem siyaari ji xalifa général de mourid daayira dañuy wax ne bis sàngam la 15 ci la ñuy dem siyaari ji xalifa général de mourid dem luyee seenu bis bis bi pour nga luyee ko képp da nga ci fay 500000 francs CFA pour mu yóbbu la te tuuba taalibe yi bis bu nekk semaine bu nekk ñu dem fa benn yoon ñaari yoon ku bëgg siyaare sëñ mun heure bu ko fa fekkee siyaare mais dañuy àndandoo daayira bi jël ab biis fay ci cinq cent mille defar seeni café defar seeni nangam dem ñëpp duñ mën a gis sëñ bi ba pare boo demee fay ci biis bi cinq cent mille dem jébbale cent mille francs CFA wala cinquante mille nga xam ne yow cinq cent mille yooyu tey daayira bi buñ ko dajale woon def ko ci compte sëriñ bi téléphoné sëriñ bi ne ko daayira sàngam def nañ nangam ci compte sëñ Tuubaa gi loolu moo ëppoon tuyaaba su ko defee yéen waa daayira bi nag ku ci bëgg a siyaare sëñ bi nga jël sa paas 1000 francs wala 2000 francs paas dem Tuuba boo demee siyaare delluwaat mais daayira bi ñooy àndandoo nga xamante ne semaine bi yëpp bisi siyaare daayira la te daayira yi ci siyaare gën jaa bari la ngay fere doo indi sax genn wàll ka xam nga bokk yi wax dëgg yàlla nag yoon wi faw nu jëm koo nosaat nag bokk yi ndax buñ ko nosul ngir nu man koo jariñoo dafay nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla du yomb nag te faaw nu nos ko nag ngir ñu mën koo jariñoo ndax su fekkente ne tey continuer nañ ci noonu rek alal joo xamante ne daanaka mën nañ ne dañ koy pasar pasaree di wéy rek di liggéey di lekk di liggéey di lekk naam su fekkente ne murid yi moom seenu njàmbaare kenn wérantiwu ko ndax lu fi nekk ñooma bu jumaa ji taxawee ñooma bu dëkk bi taxawee ñooma lépp ñooma waaye lii wax nun dañ koy wax ngir bëgg nu organ koo mën a organiser ndax wóor na ne li nuy def li muy tuuti tuuti buñ ko organiser woon mën na noo def lu ko ëpp mën na noo def foofu lu ko ëpp bokk yi ndax nun jant buñ defee téeméeri junni rek fekk na mën na noo def million mën na lu ko waaye nag ñàkk giñ ko ñàkk organiser mooy tax lu bari baree baree bari dañ koy ñàkk ci àll bi te fekk buñ ko organisé woon ci lay ëpp njariñ ci lay ëpp yëpp kon mu mel ni nan delloo siwaat xel te toog yëf yi nga xamante ne moom lan bokk muy yoon wi nu waxtaane ko seet yi nga xamante ne ay ngaañ la yu nekk ci biir nu waxtaane ko te ngaañ yooyu ñu jëm koo dindi seet waneen yoon wu nuy dox ndax adduna moo laaj loolu léegi bokk yi wax naa ko fii barki démb ci benn émission ma ne leen xool taalibe bi nekk ndakaaru bokk yi nga xamante ne biir ndakaaru lay yëngutoo te këram nekk Touba wala mu nekk Darou Mouhty tey buñ la waxee ne la sa mbokk sàngam de céetal nga passé ndakaaru ñëw boo ñëwut ñu mere la buñ la waxee ne sa mbokk sàngam dafa faatu nga passé ndakaaru ñëw boo ko defut ñu mere la buñ la waxee ne sa mbokk sàngam day ngénte nga passé ndakaaru ñëw buñ la waxee ne dañuy jébbale day sàngam nga passé ndakaaru ñëw nga xamante ne yow biir weer wi da nga ci ñëw lu mat ñeenti yoon Touba ñeenti yoon yi Touba presque cinquante mille la cent mille francs CFA bu dee koy paas ci oto yi bu dee yor otoom ëpp na deux cent mille ëpp na deux cent léegi mu mel ni kon liggéey boobu ngay liggéey kañ ngay réaliser pour man cee def dara kañ ngay réaliser dara pour mën cee def dara te am na ci yoo xamante ne yow wóor la ne lii mënoon naa ñàkk parce que yëf yi bokk yi dëgg la daayira yi ñëw jébbale toog waxtaan ci la mais base bi dëgg-dëgg du woon loolu bokk yi yoon bi base bi dëgg-dëgg mooy liggéey ci ab xol te li ngay liggéey nga seereel ko jëmmi Sëñ Tuubaa ji képp te xam ne sëñ Touba moom nekkul ci dajaloo ci daayira ñëw di siyaare wala dajaloo ci mbooloo wala yàq xaalis bu bari wala coow yu bari ci rajo bi wala coow yu dangam déedéet sëñ Touba nekkul woon foofu sëñ Touba mi ngi nekkoon ci xoli nit ñi nit ku nekk sa xol sa pëstéef sa jëf nu toll ci moom rek noonu lay ubbeekoo pour mën laa faye noonu waaye nekkul woon nag ci pëccëx pëccëx ji bokk yi maam Thierno Birahim maam Cheikh Ibrahima Fall mbooleem taalib yi fi nekkoon sëñ daaru ñoom ñoom ñi fi nekkoon ñëpp ñaata addiye lañ daan yóbbu njaareem maam Cerno Birahim ay giréem lañ daan sëf ay mbaam téeméeri mbaam da ko daan dégg téeméeri nangam ñu sëf ko addi yooyu di ko yóbbu njaareem te mësuñu ko woote ne maam Cerno Birahim ay andi addiye ku mas a dégg ñu ne la sëriñ bi dafa xëy woote njaareem cernu dafa mas a xëy ne ñëw leen ndax dama yóbbu ay addiya kenn mësu ko dégg bokk yi te noonu daqoon a joxe addiya fop ku daan joxe addiya ba joxe say doom joxe say soxna joxe say njaboot joxe lay liggéey joxe matériel ba joxe lépp mës ta am bokk yi te sunu jëwriñ yi nag buñ masaan di joxe dañuy joxe lépp te moone ne day mësuñoo woote mukk mukk mukk mukk ne bis ci la ñuy joxe nangam mu mel ni kon bokk yi adduna jooju faaw nu jéem koo daw su fekkente ne bëgg na noo jariñu ndax suñ ko deful rek bokk yi li nu bëgg a liggéey yépp duñ ko liggéey kon seen jataay wi daal majlisu suura ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbàkke moom Sëriñ Basiru Anta Ñaŋ lu mel nii la fay andi ñu seet nu nuy def ba jéem koo organiser parce que damay wax ne bokk yi yoon wi li ci nekk bari waaye ñàkk a moo nuy sonal sonal goo xamante ne dafay dem ba ëndi te lii ma lii nuy waxtaane tey jii nii yéen ñëpp ko bokk xam ku ñëw senegal xam nga ko wax dëgg yàlla bis yi bari ne ba ëpp wax dëgg yàlla te yu ci bari nag sëriñ bi sàkkaloon nanu nun koy defe ak wan waxtu lañ koy defe ak ci yan jamono lañ koy def ak nun koy defe sëriñ bi sàkkaloon nanu ko ba duñ am genn réeroo daarul moxti daaru moxti rek la ma la mën a doon mun munta am keneen ku mën a beru ci daaru mooti nag wax dëgg yàlla daaru salaam daaru salaam rek la man doon ñaari daaru salaam munta am kër maam Cheikh kër maam Cheikh rek la man doon munta am ñaari kër munta am ñett léegi nag su fekkente ne kenn ku ci nekk ci ñun bëgg ngaa wut kër nag dana indi ay jafe-jafe te duñ ko mën a saafara xam na sëñ Modou Mbaye thème bu mel nii rek lañ indi woon su fekkee it yaa ngi nuy dégg te am menn mbokk rek moo xamante ne bëgg na ci joxe ay xalaatam su ko defee rek dañ ciy ànd ak moom ba kerok nuy tëj jataay bi kon ku ci bëgg a dugg rek ah, mën nga ko dugal mu joxe ci ay xalaatam su ko defee ñu xool uh, nu nuy def ndax waxtaan wi ni may waxee rek seen waxtaan wi ngeen di ànd ak sëriñ dan du waxtaan woo xamante ne niñ koy waxee rek defuñu ko ci rajo bi képp bàyyi ko bokk yi na ngeen xam loolu. ndax ñun kilifa guñ ci mën a waxtaanal nii ñu koy waxtaanee ak yéen taalibe yi noonu lañ koy waxtaanee kilifa yi waxoon naa ko ci jataay bee weesu ne leen gis ngeen saafara yi ci tàmbalee woon am ay kilifa yu tàmbalee wax yu tàmbalee def nangam ndax ñun defuñu ko ci rajo bi rek bàyyi ko dañ ci wër kilifa yi dañuy dem ci ñoom ñiñ ko ci seqal teñ mën a waxtaan ak ñoom du tee lii xalaat danañ ko toog di ko waxtaane ak ñoom waaye dafay loo xamante ne nag du sëriñ ci képp bokk yi taalibe yi dañ cee bokk ndax màggal yu ci bari taalibe yee ko sos ñoo koy organiser ñoo cay ñàkk seen alal naam su fekkonte ne ñoom taalibe yooyu it juboo woon nañ ba toog waxtaan yu ci bari dana mën a nekk benn su ko defee àndandoo ko sëriñ si nag yu ci bari dana mën a nekk benn moo tax rek kon sëñ Modou Mbaye su fekkee am na kenn koo xamante ne yëngatu na rek a participer ci émission bi nga bàyyi ko mu dugg su ko defee ba keroog ñuy tëj waxtaan wi incha allah mu mel ni kon faaw ñu taxawaat sëriñ si toogaat ci benn taabul toog waxtaanaat xam ne yoon wi leen sëriñ bi fàkkal rek toujours moo gën seen yoonu bopp ndax seen yoonu bopp daf leen di noonale te di leen le ndax ni ma ko waxee léegi am na sama benn xarit boo xamante ne su fekkente ne maa ngi moom noo bokkoon daara mu sama xarit bu bisam ñëwee te dewuma ci rek mën na koo gisee neneen te fekk ay téq téq moo ma téq waaye du xam téq téq yi ma téq ndax tek tek yi man na baña don rek ma dem ci benen bis man na baña don way tek tek yi sax na don tek tek yi pos te du lu lo xamne ñepp koy wax ndax sama xarit man na am ak magal ko xawa sori te bis bobu ah nganna yu mu won wax deug yalla essence bu mu meuna def ci sama auto ba dem te awuma ko mu meuna yobale te it munuma ko ñaan munuma ko woyal kon lamay def rek moy joxe ngant te tok ngant la nak du doon ngant lu may meuna siwal waye man xam waaye ndaxam mbokk yi su fekkonte ne dafa yemoon ci màggalug daaru mooti képp dis na ko mën a organiser ba balaa màggalug daaru mootee ñëw nun ñëpp danañ mën a toog waxtaane ko def ci ay thème def ci ay conférence mbokk yi war a seet si béréb yi war a daje ba ñëpp gisante su ko defee nu waajalaat ko ba déwén waaye bu tayee rek boo jógee ci màggalug daaru mooti suba nga dal ci magalu kenn dal ci magalu kenen dal ci magalu kenen nga xamne at mi yépp bis bo xeye da ngay dem ci magal baba at mi jeex da fay ni nit ñi ñu am jotuk sax nek ci tol yi di liggey te ko ci tangam lu magalam rek nak mu merel kilifa go ci tangam lu ak magalam mu merel lolu mom bu lako waxe ak bu lako waxul kilifa go demul ci bisam rek merena la ndax de nga ci ci ci wax yi sax dañ koy am nit ku nek bisam la am ko fonkule ma fonkule sa ku ko la loolu moom dam koy dégg sax ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñuy def ci bisi màggal beneen bi ci desit mooy mbokk yi taalibe yi duñ mën a noppalu duñ mën a dajale dara loo xamante ne dana mën a fasu bañ indi ko ngir ñu mën cee defar dëkk yi ci des yëpp parce que tey damay wax ne mbokk yi ñun ñëpp buñ demee ba gëm ne buñ demee ba gëm ne Touba dafa war a defaru moom képp déedéet Touba du Touba kese dëkk yi sëñ Touba sos yëpp ci la ndax taalibe yëpp dañoo war a bàyyi xel ci loolu tuuba du Touba kese dëkk yi sëñ Touba sos yëpp ci Touba la tey jaadu woon na sax buñ demee ba mbir mi mëneesu koo utiliser ti tuuba wala Touba weesu na ko ba mëneesutu koo jëfandikoo ñu jël ko andi ko Daaru Muxti wala ñu andi ko Daaru Salaam wala ñu andi ko feneen parce que Touba dëkk yëpp mooy seen kilifteef ni ñuy sàmmee Touba noonu la ñu war a ndax dëkk yëpp sëñ Touba joxe ndigal ci ñu sànc ko dëkk yëpp moo joxe moo joxe ndigal ci ñu sañ ci ko kon ni ñuy taxawoo Touba noon lañ war a taxawoo yeneen dëkk yi ci des yëpp mu mel ni kon bokk yi e, yooyu yëpp na suñu toogee waxtaane ko dana nekk ay saafara yoo xamante ne njariñ lay doon ci yoon wi te it ku fi nekkati xalifa mbir mi dana yomb ci yow ndax da nga am temps pour mën a toppatoo sa kër waaye da nga am temps it pour mën a toppatoo yoonu murit waaye da ngay ba mu yàgg da ngay joxe ay bis bis yi sax jiitu su ko mën a organiser xam nga sëriñ Muntaxa neexu ko ab daayira jóge ndakaaru doon téeméeri nit ñëw ba agsi ñaari nit di ko ci gis wala ñetti nit di ko ci gis neexu bu sañoon ñëpp lay gis waaye nag nit ñi tamit li ñu war a xam mooy kenn jenn jëmm la jenn jëmm munta saafoonte téeméeri nit bokk yi maanaam nit ñi moo war a am yërmande ci côté yooyu liggéeyal ko te yàlla tax te li ñuy liggéey ñu liggéey ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa te xam ne fañ toog sëñ Muntaxa nga leen di gis sëñ a ngi leen di gis su defee ñu yombalal ko ko nag dajale seeni addiye addiye yi léegi damay wax ne xaalis moom fi ko mën a dugal bari na ndax xaalis moom kenn mënatu ko lekkal kenn daanaka kuñ ko lekkal rek dalaa neex waaye xaalis moom mënatut a réer mënatut a sànku mel ni kon bokk yi su fekkoon ne leen ko ni ma leen ko waxee ne jenn jëmm Sëriñ Muntaxa tey jii nii jenn jëmm la jenn jëmm mën naa recevoir daayira bu fukki daayira yu jóge ndakaaru ñetti daayira yu jóge Kaolack ñeenti daayira yu jóge saint juróom yu jóge euh, Tamba yu jóge Matam yu jóge Casamance sëñ bi na nit ñëpp xam it nag ne jenn jëmm la nag jenn jëmm nag ak ak loo for for lu la yàlla may daraja daraja jenn jëmm rek nga mënoo téeméeri nit yi kenn ku ci nekk nga xàmmee ko biteel bu nekk nga ñaan ca kenn ku ci nekk nga wax mënisu ko mënisu ko bokk yi yow yaay comprendre ne man kat sëñ Touba mii ma joxe tax a jóge Matam su ma demoon te fekk Touba fees dell ma yem Mbàkke toog fa te ñaan sax wóor na ma ne sëñ Touba gis na ma te li ma bëgg dana ma ko saafara pas-pas bi ci xol bi pas-pas bi ci nit ki lay nekk bokk yi pas bi ci xoolu nit ki lay nekk mu mel ni kon rek yooyu yëpp nag suñu ko bokkee waxtaane rek dana nekk lu yomb loo xamante ne dana dimbali ñépp te kenn ku ci nekk ci ñun dana ko mën a jariñoo su ko defee it sonal giñ ci daan sonal nit ñi yu mel ni àq yi dëkk yi wax dëgg yàlla eh, nun day xawma kenn waaye suñu dëkk yi di Tuubaa gii di Daaru gii xam naa ak yeneen dëkk yi mel ni moom boo moytut boo demoon Daaru Salaam noonu lay mel boo demoon faneen noonu lay dem wax dëgg yàlla nit nopp lu fi nekkul lu yomb nit nopp lu fi nekkul lu yomb ndax bis bu nekk quartier bu nekk am na ak cant wala mu am magal te fii tabax yi waajaluñ ko fi ndax du fekkonte ne dañ fee liggéeyoon ay salon ay saal yoo xam ne dafa nekk ci bitti nit ñi difa dem seeni cant duñ sonal kenn wax dëgg yàlla mu nekk mu nekk yërmande waaye ci digg mbedd yi lañ koy defee léeg-léeg sax du am baas du am dara guddi rek la ñuy toog noonu takki rajo rajo yi ci kër jàmbur yi lañ koy takk day fanaanee bu nga gis koo xam ne da lay wóor ne ba keroog bi muy jóg di julli ji fajar moom nelawut gëmut ba xëy na mu ji te bëccëg bi bëccëgu jóg dem sàkku ji dara loo am la am na ci ñoo xam ne mënuñu koo nelaw kon nag yu mel noonu yu baree bari bokk yi rek wax dëgg yàlla waris naa doon loo xamante ne dañu koy waxtaane su ko defee mu nekk njariñ mu nekk saafara ci mboolem jullit ñi ñëpp waaye mu nekk saafara ci mboolem yoon wi yëpp niñ koy waxee rek bokk yi waxtaan yi léegi dañu waaye du tee rek dana joxe thème bi nga xamante ne moom lañ bëgg a waxtaane su ko defee mbokk yi koy diglu xalaat ci te bàyyi xel su ko defee ñu waxtaane ko ñu xool danañ koy mën a jariñoo kon thème bi nga xamante ne moom la leen seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang doon andil tey ci loolu la doon waxtaane nu ñuy def bokk yi ba organiser wu ndax li koy waxee rek yoon wi dëgg la naam dox gi aw na taalibe yi ay jàmbar lañ waaye mën naa gën a gaaw bokk yi mën naa gën a gaaw ndax li ñuy am ci alal li ñuy am ci xaalis li ñuy am ci lépp rek buñ ko organisé woon bokk yi mën naa def lu baree bare bare man damay wax sax ne man su fekkonte ne man maay dogal tey du ma dogal sama xalaat rek la waaye dama ne man àggoon na ci sax su doon dogal tey jii nii tey jii nii su doon dogal tey jii nii fi nga xam ne maa fi nekk daayira yëpp kenn ku ci nekk dama lay jox loo war a def daayira yëpp kenn ku ci nekk dama lay jox loo war a def exemple bi tey bu dee Touba dama naan yéen ñi nekk itali courant Touba yéen laa ko fare lampe bu ci lakk mbedd mu ci lëndam na ngeen fexe ba courant am bi nekk Amérique mbalem Touba wala nangam daayira bi nekk Espagne wala nangam tëli Touba kenn ku ci nekk nga ko jox ko dara nga xam ne même bit ci bu man di liggéey liggéeyati moom ca la koy def wut ay expert am wut ñu ko koy liggéeyal nga xamante ne yow daayira bi dara occupation wala jant bu benn mbedd lëndëmee ci biir Touba rek danañ la contact ne la lu tax mbedd sàngam lëndëm yooyu yëpp yooyu yëpp ay xalaat la yoo xamante ne bokk yi sunu ko andi woon te teg ko mën naa jariñ dëkk bi lu baree bare mën naa jariñ dëkk bi ñeneen ñi ci des nga faral ci santé bi su ko defee nga xam ne hôpitalu Matlaboul Fawzayni bii bëgg rey nit ñi nit ñi bëgg a dee kenn ñemewu fa dugg ndax yaakaar nga ne boo fa duggee rek faatu wala danañ la facturé loo xamante ne doo ca man dara nga jël benn daayira dénk ko su ko defee dana benn am benn benn pharmacie sociale ci biir boo xamante ne nit ñi néew seeni doole wala ñiy ñëw ci bitti te duñ leen nangoo téye dis na leen mën a téye parce que am na ñu leen di dimbale ñoo xamante ne pharmacie sociale lay doon nga xam ne léegi yow duutu jar sax ngay def ay délégation di ñëw ci sëñ bi su ngeen di dem rek ba màggalu Tuubaa jot wala dara mën ngeen a yàbbal seen jëwriñ seen jëwriñ mën naa dem ci sëñ bi bu demee sëñ bi wax ko li mu koy wax ko defee mu andi jottali leen ko mag ñi noonu lañ liggéey bu njëkk maam Cerno Birahim addi yi daawu ko yóbbu benn taalu bi ñaari taalu bi la daan booleeg ñoom ñu dem jaareem buñ demee jox ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa bind wala mu jox leen ñu ñu andil ko maam Cerno Birahim waaye daawul demal boppam sax ngir bëgg gis leen ma wala ngir bëgg dara te tey daayira yi Touba yëpp buñ ko partagé woon ci biir dëkk bi daayira bu nekk mën naa yor dara ñi mën nañoo dugg mën nañ leen a féetale ci hôpital yi ñii ñu féetale leen ci centre de santé yi ñii ñu leen ci courant bi ñii ñu féetale leen ci organiser marché bi ñii ñu féetale leen mm, comme ni Touba di def ñii ñu féetale kenn ku ci nekk yore dara nga xam ne duutu jar ngay dajale xaalis di ñëw ci sëñ bi parce que dajale xaalis bi moom wax naa leen ko ay yoon def nañ ci ay conférence ñeertu daanaka ñu def li ci alal kenn xamul que nit bokk yi am na ci loo xamante ne nit mënu koo seere nit doomu doomaadama rek la doomu aadama doomu rek la doomu doomu aadama rek la bokk yi mu mel ni kon tey yii yëpp rek su fekkonte ne toog waxtaane nañ ko su ko defee organiser waat ko tegaat yoon wi seex yi ñëpp dellusiwaat ci dëkk yi nga xamante ne mooy seen i dëkk cosaan kenn bañ a beru fenn du tee nag sa dëkk ba nga nekkoon di bay def ko ay tool nga def ko dikk yu gay gaay waaye nag dëkk bañ la boole it ñëpp jàpp ci su ko defee dëkk ba mën a dem ci kanam lii daal laa ne seen mbokkum taalube dan mbàkke mom serigne basiru antagnan ah, ci fanweeri minute yi teunkel na len ko resumel ne len ko muy lo xamantene luñ wara tok waxtane lako la ko su ko defee kenn ku ci nek bay ci waram kenn ku ci nek bay ci tolam ndax ñu xol nan lañuy mëna def ba jariñoo ko su ko rek mbokk yi yi nga xamantene bëggoon nañu dugg yépp te ami tak teq eh, ci seen émission bi rek eh, ñu jéggal ñu ko mbiri machine ak mbiri rajo mo démé non li doon suñu yéene rek mooy lépp suñ suñ xalaat ci dëkk bi lépp lu suñ xalaat ci yoon wi ñu toog waxtaanee ko soo ko defee mu defee mu nekk ay njariñ yoo xamante ne ñun ñëpp noo koy bokk jariñoo waaye waxtaan wi ni ma koy waxee bokk yi rek man waxuma ak sëriñ ci képp ndax taalibe yi sëñ Alaaji Baara yàlla nañu yàlla dool dolli ay leeram mas na ko wax ne li fi nekk lépp yéena ginnaaw li fi nekk yépp yéena nag yéen itam faaw ngeen di ko waxtaanee di ci bàyyi xel su ko defee yombalal yu bari bay xalaat ne li leen war bari na ndax fi mu toll réew mi neexul bokk yi sëriñ si sonn nañ lool réew mi neexul ndax nam doon doxe wax dëgg yàlla nag doxeetu ni te yéen taalibe yi yéen rek la yéen a te liggéey yi bari na te bokk yi liggéey yi bari na tuubaa gi li ci war a def bari na man damay wax ne sànc yi ñuy woote mooy li ci gën a néew mooy li ci gën a néew waaye environnement biir dëkk bi képp ni nit ñiy dëkkee ba mu mën a nekk du stable nekk ci yoon woo xamante ne yoon wu rafet la wu taaru dëkk bi set wecc mbedd yi ñu godorone ko mbedd yi ñu pawaas ko def ko ay territoire nit ñi mën a dox fii dëkk bi ñu tëj ko nit ñi mën a dox seen tànk lépp mën a lijjantiku bokk yi dara lu ci yomb amut dara lu ci yomb rek amut kon nag liggéey yu mel noonu yëpp bu fekkente ne dafa tege ci seen kanam yéen taalibe yi war ngeen koo bàyyi xel te xam ne wax dëgg yàlla tollu wuñ naam bu fekkee duñ ko tuddee ak yàq ndax wooteeg màggal togg nit ñi lekk togg nit ñi naan duñ ko tuddee ak yàq waaye nag am na faneen fu mënoon dem am na fu mënoon dem kon mu mel ni bokk yi seen jotaay bii di almajlisu suura ngeen doon ko ànd ak seen mbokkum taalube mahmoudan mbàkke moom sëriñ basiru antañang lii la andi woon tey ci dimanche bi eh, lu ci nekk ci rëq-rëq ngeen jéggal ñu ko te xam ne ci ñun la lu ci baaxit ngeen xam ne ci sëñ tuba la moom mi nga xamante ne rek moo tax muy wax eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñi ngi leen di jox dig dijee incha allah dimanche bii di ñëw bu ñetti waxtu ak genn wàll jotee ci seen rajo bii di rajo xasida wan layen di leen wax wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu قلبك